du 9 au 21 juin boycottées par une partie de l'opposition ont été bouclées ce jeudi et les rapports des huit commissions transmis à son coordonnateur Moustapha Niass qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et parmi les points de discussion de la commission politique du dialogue national figure l'éventualité d'une révision du procès de Karim Wade, condamné en 2015 à 5 ans de prison pour enrichissement illicite et la modification de la loi pour ouvrir la voie à une candidature de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, à la présidentielle de 2024. À Paris, dans le cadre d'une tournée avec le chef de l'État, maître Aïssata Tal Sall a répondu à la sortie de l'avocat français Juan Branco qui promet de traduire devant la Cour pénale internationale certains dirigeants sénégalais, dont Macky Sall lui-même. Invité de France 24 et RFI, la ministre des Affaires étrangères a qualifié de puérile et ridicule la démarche de l'avocat d'Ousmane Sonko. Dans le cadre de la relance du secteur touristique, le ministère du Tourisme et des Loisirs a entamé ce mercredi deux jours de mission de suivi et d'évaluation des projets financés par le Crédit hôtelier touristique. Ces visites ont été effectuées dans quelques établissements hôteliers à Dakar et à Djamnyadjo. Le Crédit hôtelier et touristique est une dotation initiale de 5 milliards de francs CFA. Ainsi, le directeur du cabinet du ministre du Tourisme présent sur les lieux assure que les touristes n'ont rien à craindre de la destination sénégale qui n'est pas menacée selon lui. À l'international, des autorités espagnoles ont annoncé ce jeudi 22 juin avoir secouru au moins 350 migrants au cours des dernières 24 heures dans cinq embarcations dérivant au large de l'archipel des Canaries, au lendemain d'un naufrage qui a fait au moins deux morts. On termine avec le sport. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de football, Khalidou Koulibaly, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du centre de santé de Nganon, son village d'origine qui est dans le département de Canel, au nord de Matam. Il a mis plus de millions de francs CFA pour la construction de cet centre de santé. On termine toujours avec le sport. La date officielle de la cérémonie du Ballon d'Or africain, également connu sous le nom de joueur africain de l'année, n'a pas encore été annoncée. En attendant, des favoris indiscutables pour la succession de Sadio Mané, double